dëgg sama tax man dama gor ñu bëri mere nañ ma ndax jibi ñu bëri mere nañ jibi ndax man mais damay gis ni jalousie rek parce que des fois lu ñu ñëw di ma modéré sax naan ma del xool nay waxee balaa muy métti man su ma leen woowee bañ leen a wax dëgg kon suba fekkat ngeen may jàpp rek man doomu jàmm gën laa kenn ëppale wu ma jàmm fii laa juddoo mais seen baaw laa jàngee seen jàmm gën laa amee defet su ma génnee yaa am loolu gis des soo leen gars yi comprendre man artiste la ma artiste mbalax man ak rappeur bokk mbalax man mën na ñëw sàmba mayaat lekk sa xaalis man rappeur laa ma gisee lu ñëw dama koy wax société bi moo ko jaral kenn mënu ko koromp bu fekkoon dañ may ma naan ma cinq cent mille nga ma lii dama koy jël ba xale nga ne ñëw ànd ak ay nerf rapport yëpp wane ginnaaw man kese maa taxaw doole sama bakkan mu ngi yóbbu ba léegi kon donc album bi taxul sax may wax génne naa album 2016 ngeen jékki-jékki tout tout récemment ngeen gis ci Facebook bay affaire yoo xam ne ay feex la kon nit booy yàq dara da ngay bàyyi ba baaxoon génn fii yaa ngi génn xam ne nekk duñ fi nga ñëw yàq dara man fii. avant mi tudd Sicap extension Sicap mbaaw toj ba la tuddoon amul woon toj ba ñu fi leen doon fooyee ndax booy fi ngeen toog ni ay seer la woon yaa ngi dégg kon benn école bi ñëw fi bu ko jaxase sama xel ak sama population du ma ko nangu mënul nekk commencé nii parce que xam nga man damay defee émission rajo def émission télé sama album moom may ñëw mais su ma toogee sama xam ne ma war a amul leer maa ngi seet bopp maa ngi dégg lu nekk ak jamono ji bës day politique bës njëg nii booy sa noon sa noon sa noon la yéen yéen a bëgg a xam loolu ak loo mën a def sa noon sa noon la mais maa ngi ñaan yàlla mu gën ma sàkk sutura ba li may xaar ci man bañ ko gis parce que tey ñu bëri nga xaar ci man ñu bëri nga xaar ci man sax ñu jiit ma kaaro fi yoon booy man jàppal même la façon jigéen bi nekk bi seet si la moom yaa ngi dégg quatre-vingt-dix ba léegi maa ngi am yow xam ngeen ne ci télé mais mosuma ko joxe xamul waral loolu parce que côté bi dafa dama leen expliqué ngeen xam lu leer na c'est un problème avec le maire monsieur monsieur le monsieur le maire bu ma doo fekk dinaa koy waxee mais sax ma engagé bu mu wax man la engagé parce que ma taxaw ci Facebook bi fenn nee na sama album moo ko génnee jox na ma temps rapport bi foo nekk na la jox naa diw bu nekk âge bi ñëwaat jël leen décision rek ne dañuy yàq sama carrière sama carrière moom baa ñes naa ko wax leneen ci des ñun ñu toog jël décision ma jàpp pour comprendre c' était pas pour affaire artiste am ma bëgg ma bureau ma kon bu demee gis ma jël position bàyyi ko parce que bugguma jàmm gën mel ni comme yeneen gox yi di arrière bëgg naa jàmm gën mel ni Almadies am naa droit dégg am naa droit man am naa droit toog si cere ne jàmbagum doxul am naa droit boobu parce que tey jàmbagum si Tamba budget bi mu ngi nekk si huit cent et quelques millions yéen kan nga fi am kan nga fi am waaw liggéeyoo rek ñoom benn monsieur le maire bu ñu toog man ma nekk rapport bi taxaw dama ci wax taxaw du fee sa bi beneen bi ci des taxaw na ne moo moo génne sama dugub waxuma sama carrière dañ bàyyi la muy ñëpp ma bàyyi du tranquille fu ma yàlla ngeen ma sànni ay xeer sama carrière bu ma ci yàlla bu ma bàyyi mu ne loolu parce que album booy génne da ngay ne diw moo génne album bi concert dafa am phase ba ma dem na ma seet

na ma bës ma ma ma ma a man du ma ngaa ko tukki neex na trop ba ba tukki dangay gore doo fen gis nga ne man waxat laa sonal naa ko léegi mu bëggoon yóbbu kaaw ma dem toog affaire na yóbbu na ko ne la bu mun naa si jàpp moo tax conseil bi ngay def seen ma ci man nag posté Facebook parce que soxla nañ ay cent mille francs maire man lijjantiwuma cent mille francs maire lu nekk dégg nga man ñu posté ñu ne Buzz 96 ba léegi amul nëw nëw bu baax day taxaw su ma waajee man am naa diplôme bu mu mënee def toog société mais suñu musique dafa laaj nga kaasa sa wax dëgg damaa war lool dama leen jox loxo am na ñu taxaw jëluñu loxo bi man kese dama koy xeex ba egg foofu mais pour fi dire que démb. semaine passée man responsable la jàng naa dof ma dem ba suubar bi joxe sama tur joxe sama demande ñu defal ma sama autorisation ku nekk préfet bi danaa saw woo dama woo na nee na ma est ce que sa caravane bi ñu commencé expliquer duñu ko parce que am na fuite ma ne ko man dama defal sama demande yan accordé ko yaa ngi dégg kon tey li ñu waroon def fii ñu ngi ko waroon defee ci casier double ñoom ñu profité doon saxal foofu ay garab xanaa balaa ngaa saxal garab waaye am liggéey boo xam ne ñu toog fépp dañu wax dëgg gis nga ñuy dugg moom dugg te problème ma nekk man man ñi ma man dama jël position man buzz télé rajo animateur Pape Sidi Fallo samay émission dama jël position maanaam sax dimbali ma nga jóg taxaw ñëpp gis la man dama gëm man lii mooy sama mère Barça jugal. sama maam lay mel. xanaa neex na. dégg nga Pape Alioune Seye. xanaa neex na. ku ci ànd ànd ak man jàppale ko mu jël commune bi ku ci àndul dañ def lu la neex mais du yàgg sama diggante ak yow parce que bu tax ma gën a position ak moom man xam naa ko man xam naa loolu bu baax bu tax ma gën position ak moom xam naa ko parce que bu doon intérêt laay dugg 98 ba 2019 bi dem naa sama yoon bu yàgg beneen bi ci des nag moom. laa yaakaar ko mosul sama xol deewul mais dama xam ne da ngeen jël commune bi jox ko koo xam ne xamul xamul xamul lu xew nit nag bu xamul lu xew amoo ay bokk amoo ay xarit da ngay jéem a soxla bës bi jàmbur parce que bañ koy def da nga yaakaar ne kii mooy loolu gars yi fa la ñuy bàyyi xel benn affaire àdduna dafa gàtt kon dara jarul jaay sa bopp dara jarul jaay sa bopp man sama album maa ngi koy bindal sama bopp di ci nekk di nekk du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg bëccëg su ma demee ba am ñaari nit ñu ma bëgg damay gis ne liggéey na damay gis ne liggéey na mënu ma imposé ñëpp nekk ci dëkk bi am na ñu fi nekk ñoo xam ne liy doxal musique daal Sénégal ñu ngi seen loxo mais xam naa man damay déranger damay déranger parce boo xam gars yi bëri dafa bëri dafa dem dafa taas a taas a ba musique am sax doo ko comprendre. salaamaaleykum